ndox mu toll noonu. gis nga gis nga du ñu dalaat. gis nga bu ñu dalaatee en 2009 en 2009 uh-huh. en 2009 bi muy inondé. Ah. c'est presque la moitié la taw. 2000 2009. 2009 wala 2005. 2000 2005 moo am inondation. 2009 ak 2012. 2009 mhm. bi muy inondé. Mhm. gis nga crue bii ñuy wax nii. moitié bi moo taw moo taw Sénégal mu inondé. Mhm. maanaam mooy bi Ablaye Wade. di di wàcc di ñëw ci biir banlieue bi ak oto c'est presque la moitié. Mhm. moom moo taw mhm. mu inondé. 2012 mhm. bu ma la waxee bu ma la waxee la situation une situation exceptionnelle du man maa koy tënk du man maa ko wax de. monsieur le ministre c'est les techniciens. on peut être d'accord nga xamante ne ñoom ñooy les urbanistes. les les les les géographes ou consorts ñoom ñooy. définir loolu yëpp d' accord nañ ak ak yow. mais en 2012 tey jii gis nañ ko euh, looloo taxoon président de la république supprimer supprimer euh, euh, Sénat dissoudre Sénat. justement pour xeex lii di inondation. donc si on arrive là aujourd'hui dañuy am envie wax tout ça pour ça donc ma bàyyi peut être sëñ Saliou. très rapidement waaw non man li ma bëggoon a wax ministre bi moo di bu fekkente ne da nga am ay kuréel ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ liñ la wax yëpp da ngay tënku ci. seen xam-xam gis nga mbas mii président bi dafa am nee na ay experts ñoo xam ñu ngi ci comité scientifique bi moom li ñu ko wax ci ci lu jëm ci euh, gestion mbas mi loolu la ñuy tënk moom la ñuy doxal gis nga ñi nga xam ne aussi tey ñoo nekk ANACIM mën naa ne euh, comité scientifique boobu ñii ñooy comité scientifique de la météorologie li nga xam ne lépp dañ ko wax nit ñi dañ koo doxal te pourtant yaa ngi naan si c'est bu fekkente ne ñoom dafa am loo xam ne dañ de contingence dem leen ngeen informé population yi mettez prédisposer leen tel ou tel ou tel ou tel mais de grâce au niveau des collectivités parce que li may wax man du état bi rek mais collectivité locale yi lan moo ci seen lan mooy ci seen implication ci ci ci ci ci euh, mbënd mi boobu ba léegi pratiquement maire yi heure boo waxee rek c'est comme s'ils sont complètement désarmés et li gën a grave mooy ci instant yi gis nga gis nga les administrés bi ñu leen di léegi lu ñu wax ñu kenn c'est-à-dire on a l'impression que les maires ont même fui les les alors que ñi nga xamante ne ñoom ñoo war nekk au premier plan ci mbënd bi moo war nekk tey maire ñu gis seen taxawaay te loolu bu fekkente ne ñoom doxaloon nañ la nga xamante ne moom la waa SILS wax waa ANACIM parce que aussi xam-xam lan lay jariñ bu fekkee ne dañ ne la lii dina am da ngay jël say disposition tey fi ñu toll nii Japon bu ñu ne dina am séisme dina am wala tel dina am dinañ jël seen disposition ba bu ñëwee population bi du ñu sentir les les les les population bi dañ koy sentir ah, ah. population koy sentir on les évacue ndox mi ñëw yàq seen bien yëpp mais c'est-à-dire dama la wax ne ampleur bi muy am du ko war a am ko loo xam ne yow comme yéen lii daf leen bett ñun ñi lul ñu bett ñu te man dafa am loo xamante nii c'est un plaidoyer boo xam ne dama koy def gis nga ministère bi nga doon gérer dafa mënoon a régler lu bare bare bare bare su ñuy wax requalification de la banlieue restructuration dama ciy boole sax consolidation en en même temps loolu tey bu fekkee ne dafa nekkoon en place gis nga problème inondation yi dina jël en charge non seulement les inondations la question de l'aménagement la question d'assainissement et même aussi le reprofilage même des des des des des de développement de la banlieue malheureusement on en a fait un ministère boo xamante ni sous-ministère finalement on l'a même supprimé alors que tey peut-être que bu fekkee ne jox nañ ko en tout cas la war ci budget banlieue bi problème yi ñuy jàkkantool duñ ko jàkkantool malheureusement ici ce n'est pas nga ko. Euh, ñoo ngi koy ngàcc. ah mais li nekk maire bi la ne dafa inondé ah. Euh, dafa ah, ah. mais loolu loolu en général xam nga nag ku ci nekk daa am lu ñu lay jagleel ci code des collectivités territoriales dafa am ku ci nekk liñ la jagleel donc Armeria naam sama biir commune la nekk waaye ville de Pikine nag. moo ko moom ok moo ko moom donc cest a dire c'est une répartition boo xamante ne c'est bien organisé boo xamante ne depuis ba affaire bi amee ba léegi ville de Pikine déployé wu nañ ñoo nga fa seen moto ñoo ngay pomper man fa nga xamante ne nag feneen moo ca nekk moom laay def loolu moo tax may rebondir ci question ci liwu Saliou bi bi. terminé par là monsieur le ministre. waaw ci sëñ Saliou bi pour les collectivités territoriales je suis persuadé d'une chose ci jamono bii ñu teg ñu toll nii ak jafe-jafe yi am avant kenn di gis état maire ngay njëkk a gis. e pourtant, les maires n'ont pas véritablement les moyens d'agir en termes d'inondation. population yi gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga les maires. moyens véritables d'agir. loolu moo tax ah. problème bu ñuy seeti seen militant la ñuy seeti. ah mooy population yi. waaye loolu moom ci cadre politique bu jotee la. loolu maanaam maanaam maanaam campagne électorale bu jotee. actuellement bi euh, les maires campagne électorale bu jotee. mënoo hmm. seeti keneen ku dul ñi nga yaakaar na ñoom ñoo lay ñoom ñooy ànd ak yow. mais quand on sort des des, des élections ou autres et un bon manager bu ñëwee xàmmeetul kan moo ko woteel ak ku ko woteelul. mais préparé ci côté santé. ci santé bi après. parce que du euh. leen fàtte ci rapport bi nga doon lire sànq rapport waa SELSI bi dañu wax ni même bu taw bi jeexee après dina bàyyi ay jeexeetal ci paj ay sibiru ay jaar yu doy waar ba noppi ci changement climatique baykat yi itam mun nañu yàqule daanaka mboolem li ñu béyoon te dafa mel ni gis discours chef de l'état moom sukkandikul ci euh, rapport bi eh, eh, boole waale li ngay wax nii lu ko gën a dëggal moo di réunion boobu ma la doon wax le cadre de le cadre des services climatiques waaw le le la directrice de la santé Marie Khemesse Ngom ma nga foon teew Marie Khemesse Ngom qu'est-ce qu'elle a fait aussi eh. moom par rapport à ça parce que même Marie Khemesse Ngom tey moom waroon na jël toutes les dispositions nécessaires eh. avec waa santé dans leen éventuellement bu fekkete ne tey mbënd am na qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les maladies pour le pour les maladies diarrhéiques qu'est-ce qu'il faut mettre en place c'est-à-dire pour éviter qu'il y une profusion des des moustiques lan la ñu comme dispositif pour les médicaments nuy secourir nit ñi tout ça la directrice de la santé waroon na ko mën gérer mais malheureusement rien n'a été eh, fait. non non non non non sëñ Saliou ne dis pas rien n'a été fait. rien n'a été fait. sëñ Saliou. rien n'a euh, déglu ma rek. gis nga ñi génnoon fii léegi ñooy ñi génnoon interlocuteur rek ñoom ñoo taxaw ñu ne gisuñu kenn ils n'ont vu personne ces dames là elles n'ont vu personne gisuñu kenn ñoom ñoo ko wax. xam nga ku ñu gis Mouhamed mii rek lañ gis gisuñu kenn waaw non euh, c'est-à-dire sëñ sëñ ah, Saliou Mouhamed gis gisuñu kenn euh, sëñ Saliou ni mu koy ni muy waxee yëf yi wax naa ko ko léeg-léeg analyse yu pertinente lay def mais quand même day du du du c'est-à-dire que d'emblée il ne reconnaît pas les efforts qu'on est en train de faire quand on dit sur le plan de la santé qu'est-ce qu'on doit faire mais bien évidemment sur le plan de la santé le, la réunion euh, du conseil interministériel le ministère de la santé était là qu'est-ce qu'il fait là dans les mhm. mën nañ fa nekk mais action yi sur le terrain c'est-à-dire que sëñ Saliou aussi ah doo yow doo li nga soxla ni nga ko bëggee ak ni mu war a demee du noonu leen di évacuer est-ce que yéen am ngeen fu ngeen leen di yóbbu sax yéen bi bi nga xamante ne dañuy soog a yegg si rek c'est pas facile de s'étaler nekkaguñu woon sax ci pouvoir bi mm. yegg si rek mbënd am mm. nga xam ne sax mun na am dans la connaissance des choses yu bari yu des mm-hmm. sax jël nañ nit ñi évacuer leen très bien waxatuma la nag bañ defee un mandat ba mu jeex tàkk merci ba pare xam li fi xew yépp ak tous les efforts que l'État a fait en termes d'inondation tey protection civile ak tous les moyens yi ñu ko renforcer protection civile bi ñu fiy ñëw ak léegi ni mu mel. merci ah, nga xam la volonté du chef de l'État kon xam na ne ku am inondation. et que l'État pense toutes les dispositions nécessaires sont prises par l'État du Sénégal pour être aux côtés. des populations surtout le président de la République euh, ba mu jëlee plan Orsec lancé ko ñu def réunion intervention yi déploiement bi nekk ci biir réew mi ñuy massawu ñi nga xamante